Bienvenue dans votre rubrique Bisport. Pour votre actualité sport, nous allons sans plus tarder parler de Sadio Mané, l'international sénégalais, l'enfant chéri de Bambali. suñu Sadio national bi nga xam ne ñu ko annoncé fële ci Real de Madrid. foofu ci Espagne a hauteur de cent vingt millions d'euros. waaye Liverpool bëggul bàyyee joueur boobu noonu staram boobu di Sadio maane bu ko bàyyee noonu. Sadio Mané bi nga xam ne saison bi ñu nekk dugal na quatorze buts. bokk na ci joueurs yi gën a décisif ci équipe kooku di Klopp. wante bu ñu xoolee équipe boobu di Real Madrid mi ngi topp Sadio Mané depuis ñaari at ñu fàttali ni que Zidane boobu ba léegi mi ngi bëgg Sadio Mané ci foofu ci équipe am le Real ou pour Sadio Mané. kenn wax ñu ci yi ndax Sadio Mané dafa war a dem foofu ci équipe boobu di Real de Madrid wala dafa war toog foofu ci Liverpool Liverpool bi nga xam ne foofu ñu ngi koy fay 9,3 millions d'euros gën a tuuti le salaire ci kanamu Salah ak Firmino. mi nga xam ne forme le trio de Liverpool. tey wax ci kooku di Kalidou Koulibaly mi nga xam ne il fait partie de l'un des plus grands défenseurs actuels dañuy wax un défenseur moderne à droite des deux pieds de relance gauche de relance droite. avec une très bonne lecture de jeu excellent dans la récupération très bon dans l'anticipation dur sur l'homme avec des qualités techniques le roc sénégalais sur ses 1m87 intéresse pas mal de clubs européens bu ci mel Paris Saint-Germain Manchester United Koulibaly mi ngi sous contrat ak Napoli ba 2023 tax Napoli ba nee na ku bëgg kooku défenseur am central bi di Kalidou Koulibaly faa ko génnee lu taxoo taxu aw lu ci mel ni cent ci loolu équipe boobu di Manchester United proposé quatre vingt waaye leen ne dafa tuuti loolu tax na ba bii di Paris te noonu tamit équipe bii di Liverpool seen entraîneur bi di Jurgen Klopp dafa bëgg Kalidou Koulibaly pour mun ko boole ak kooku di Van Dijk xam ne yàgg leen tekkale ñoom ñaar tey boobu défense centrale wax ñu seen xalaat ci commentaire préféré fan ngeen gën a du Kalidou Koulibaly mu dem Liverpool Manchester United wala Paris Saint-Germain.